lii ngay dégg fi ay cent pour cent Pikine du dëgg ci ñoom. Mhm. ba tey damay foofu ndax dama ay coow. du dëgg ci ñoom. ay am dëgg ci ñoom. bu nekkoon dëgg la de Guiers déglu ngeen ko mu wax. waaw. ah loolu jeex na. mais père li mu wax est ce que stratégie. parce que Cheikh na Cheikh Saad bu Lac de Guiers du benn mbër du fooy commandé naa daanu. Mhm. ku war a wuti ndam. teg kaamil waat ne bu fekkee lii amul yàlla naa daanu. ñu woo mu ñu jox ñu jox ñu numéro oto bi gën ñu ay vocal leer nijaayam la ko jox nijaayam la ko loo bëgg xam si boo ñaa jox waxal ak sama nijaay oh. waaw sama nijaay jox ma ko ma wax yow mais après papa dama gis mu ñoom ñu non boo ñaa dama ne ko chaque jour yàlla xol lay fay bul bàddi kenn Jules Baldé boo ñaa ki si mbapatu kër seen buntu kër. moo ko ama est-ce que fekke naa ko. déedéet sa dimanche passé ñëw laa wool si mbapat bi mais bu yéen ñaa war leen a bëri. Mm-hmm. mais Jules Baldé yow waroo bëri ak waroo fexe Ama Baldé ak Boy Niang di bëri. Mm-hmm. mais papa en tant que magu Pikine ak Pikine ni mu nekkee. mag ñi nag mag ñi nag tant que taxawuñu ñun ñun ñu daan bëri. waxante dëgg. muy man Baba ab du Bakhoum. Paala Diop. ah ak suñuy mag ñu fi des. toog si kanam kanamu Papa Diop waxante dëgg. booy ni booy booy ni parce que yàlla moo ne bu xol yi àndee mu ñëw bu xol yi ànd du ma ñëw. kon Pikine li ñuy def. du dëgg ci moom gëmuñu ko gëmuñu ko. mais dañoo gis open press booy ñaa kii di Eumeu Sène ñëw. soox ñëw. Oh, yéen presse na wut si. du loolu. presse bi doon ñëw lañ. waaw lañ doon wut si rek ne ànd nañu. mais bu ñu àndoon yow buntu Pikine lañu fàq def juróom fukk camion suuf summeeku ngemb te contact seen biir seen biir waaw. kon préparation bi gisuñu ci benn mbëru pikin mu ñëw taxaw jàppale boo ñang ci contact. Oh, loolu tax moo ne sóob la. sóob la mais papa contre ak Balla Gaye coow li bari na lool nee nañ Boy Niang du bëre ak Balla Gaye moo moo gën a neex yooyu yooyu ay Aziz Ndiaye da koy wax pour euh, pour mafia ñu da leen bëgg a gëlëmal daal. pour Ngara Ngou Sénégal. maa ngi la ko wax tey. Balla Gaye si gën a neex daan. mais père dafa am benn wax bu mu. ba muy bëri ba la amal seen ngi yëpp yëpp si man la ko entraîné. Balla Gaye gën a ci bëri Sénégal. barke Cheikh na sax saat bu maa la ko wax. mais père dafa am dafa benn wax bu mu nga wax ko père. dama la déggoon xool nañ ko fu nekk gis ñu ko. bu amee dix bu amee cinq minutes bu combat Boy Niang Balla Gaye bu amee cinq minutes yàlla na ma yàlla rey. non man kay maa la wax loolu. déet waaw yow kon xoolal ma mer xel laa lay waxee ak xol. déet dëgg dëgg ak dëgg laa lay wax si kàttanu suñu borom. nga ne combat Boy Niang ak Balla Gaye bu matee cinq minutes yàlla na ma yàlla utu fële yàlla nañu daan Boy mais père. père xam nañ ko ñoom xam nañ loolu bu wóor. dafa am dafa mu waxoon ko. du yéen jotoon ngeen avance. gas waaw mais Gaston ñàkkul fula de. Gaston amul borom milliard bu ko mën a manipuler. waaw ah, loolu moom ne démb tey soog a ñëw. dëgg la. ko imposer si lu mu bëggul. dëgg la doo ko defal mafia doo ko tegal affaire doo ko tegal ay nijaay ay ay maam. dëgg la gëmul loolu de. léegi la nekk seen maam mais ñoom ñëpp bañoo bañoon. dëgg la. bu mu déllusé si la la mu ñëwaat. dëgg la.